mbirum gatsa sa di ko teg c'est honteux et c'est malheureux pour un pays boo nga xamante ne su gàmmu jotee des milliers de personnes di fi dugg su màggal jotee ñaseen yi bu ñu waree gàmmu et cetera et cetera ay tubaab yoo xam ne dañuy xonk cur jóge bitim réew ñëw fii pour découvrir ñun suñu religion non seulement c'est beau mais instant bi image bi ñuy wan du image yoo xamante ne image yu rafet la su fekkente ne nguurug Sénégal moom moo war fay lakk gi comme on dit. Mm-hmm. yomb naa fay. Mm-hmm. mbir dañ ko teg ci yoon. Mm-hmm. ma ngay doxal yoon. waaye nit ki bàyyi koog liberté waay. nit ki bàyyi koog liberté am waay Pape yoon mi ngi def liggéeyam yow sax yoon nekkul ci li ci des. mi ngi def yoonam. sàccul euh, yàquñu këru jàmbur taaluñu dara. yow soo leen encadré rek ñoom li ñu bëgg a def dinañ ko def. Mm-hmm. ba mu dugg si biir ndakaaru gi dem dugg si ci biir këram te coow du am. nga bañ a barricade buntu këram parce que mm-hmm. barricade boobu noonu ak waa F24 ñoo ñoo instant bi ñoom ñoo attiser xal bi. moo yee fitna moo yee fitna tey jii. Mm-hmm. mooy waa F24 yi fa ñëw ni leen dañuy dugg seet ki nga xamante ni moom mooy président Pastef bi loolu moom moo indi jafe-jafe bi. nañu dindi barricade bi. Ousmane Sonko bu fekkee dafa am mandat d'arrêt international yow Pa bi Biraay mi xam nañ ne du rëcc. du rëcc mukk du rëcc. Mm-hmm. problème bi ba tax ñu ni. Mm-hmm. nit ki dañ koy xañ liberté am en fait lan mooy problème bi. Mm-hmm. su fekkente ni loolu noonu yow leer na leen ni loolu mooy problème bi jamono ji nañu daal di lever loolu le plus rapidement possible fay lakk gi. Mm-hmm. parce que yàq gi doy na sëkk sëkk sëkk pa màgget. gis na kër kër kilifa yii nii. du ay kilifa rek yoo xam ne dañoo nekk ci pouvoir. mais dafa am ay nit ñoo xamante ni tey dañoo nekk di dund si seen ginnaaw. man li ma li ma li ma fiy fayeeku akus néew. tey maa ngi siy fay bon. tey maa ngi ciy may keneen ak keneen maa ngi ciy def leneen ak mm-hmm. leneen mm-hmm. même bu dee benn fukki dërëm bu ma ciy may sama doom la sax mm-hmm. am na ci am na ci am na ci am na ci lu koy jëriñ kon nag bu mu nekk di façon bii wala façon bële la mais yàqal doomu aadama loolu ci boppam àq la nañ ci bàyyi xel bu baax a baax encore une fois di wax nii nguurug Sénégal bu fekkente ni bëgg nañu yëf yi mm. fay nañu dindi barricade bi. Mm-hmm. nañu bàyyi yoon def liggéeyam. suñu demee nag ba yoon def liggéeyam. Mm-hmm. bu fekkee la ca war a aju war na ca aju ah su boobaa ñu xam ni yoon moo doxal mais pour la le mm-hmm. moment mënuñu fi indi yoon. mënuñu fi indi li Birahim wax. Euh, ci ci début ba benn notification buy wane ni moom dafa war a toog biir këram tëju fa ndax jox jotul lettre bu koy wan ni damaa war a toog sama biir kër tëju beneen bi ci des mooy fi may tàggoowee di jeexalee mooy encore une fois j'appelle à la conscientisation des jeunes mmh. ne sortez pas de grace mhm. de grâce s'il vous plaît mhm. président Ousmane Sonko mi bis bu toogee ci pale bi mhm. wóor na yàlla ñoom Déthié Fall ñii ñoom xalifa Sall ñii ñoom lay jël ñu teg Sénégal nii ku nekk jël sa wàll ku nekk jël sa wàll pas de système pas de système ku nekk jël sa wàll parce que boo xoolee li président Macky Sall doon wax ci changement mais moom bi mu toogee xaaj ba yépp gisatuñ ci dara parce népotisme lañ koy wax xaw ma sama mbokk du nekk ci ci ci gouvernement instant bi nii la Mimi Touré doon wax du benn du ñaar du ñett xarit mbokk sa xaritu soxna koo xamante ne mook sa soxna ñoo bokkoon école mm. sax jox nga ko ay marché mm. mais kaay leen ñu waxante dëgg ku fi toog toogal say bokk ki say am di jàmm mm. kon man du ma génn di jaay sama bakkan ci loolu daf koo jarul jaajëfal ñëpp di remercier ñëpp Fatima joxe na ay euh, exemple yu bëri waaye